jàmbaar naka mu. ça va ça va tranquille. yaa ngi ci forme de on dirait. waaw rek. jour bi foog ñu nekk si forme. pourquoi. ayu mo ay Youssou Ndour mooy tëgg. te moom bu teugé xam nga dëkk bi day yëngu. danaka mom momay yëkëti donc foog nekk ci forme. donc chaque début janvier yaa ngi fii. yàgg na chaque fois ma ngi fi hein ah. et euh, je pense pas que ni tant que ma ngi dund dinaa ko raté franchement yow lan lan ngay xaar tay ban lan nga sa attente tay ci par rapport ak euh, soirée 4 janvier bi. def soirée bu neex bu dégg jàmm ah, comme nous mu koy defee moom déjà mom ay soirée ça promet quoi donc euh, on a l'habitude de vivre l'ambiance donc euh, voilà quoi on a on va on va vivre la soirée comme la comme d'habitude. ça si ci fan nga bok mën na fan si. number one ñuma ma xam dëgg xam nañu moy moom moo ma je pense quoi mais à part ça mon mon déplacement yombul mais mon, moom dañ koy merci. star. la <laughs> star. Ça va Bien, merci. Oui. Euh, comment, vous, vous sentez à quelques heures du, Je suis très heureuse en fait. Oui. Vous êtes d'où euh, De Saint-Louis. Oui. vous venez, je pensais que vous, êtes, vous, êtes venu de la, la, France, de Paris. De Paris, non. parisienne Non, je ne suis pas parisienne. Non. Comment ça se passe, euh, euh, la préparation, l'ambiance bien avant le, démarrage Bon, j'avoue que c'était avec, euh, avec plaisir en fait, parce que à chaque, à chaque fin d'année, j'attends le concert de Youssou parce que d'habitude, monde je ne sors pas. Oui. Vous venez venu de Saint-Louis directement Non, je vis à Dakar en fait, présentement. C'est mes parents qui sont à Saint-Louis. Vous êtes venu seul euh, non, avec mes cousines, ils sont dehors. Ouais. Vous attendez à une soirée explosive Exactement, comme d'habitude. <laughs> ouais. Merci beaucoup. C'est gentil. Euh, pour quand là <laughs> Pour monsieur. Monsieur Ban Monsieur Mbouch. Bon. mais en même temps vous êtes pour euh, assister soirée Youssou Ndour. si. Comment vous attendez la soirée bi lan ngay xaar. <laughs> bon Youssou est dans idole le Donc, donc ma convaincre monsieur pour me indima.

Non, dans dans le chaos. On est là, défoulé là. Ouais, décompressé et puis Avec ak Youssou bégay et puis tranquille quoi. madame pour la première fois suis content trop yow aussi c'est la première fois parce que aussi peut-être c'est le boulot qui ne me permet pas de faire de sortir souvent. Mais elle m'a convaincu, donc euh, avec Youssou il n'y a pas de souci. L'impression de bien pour la première fois, c'est la foule comme madame ou bien La foule, euh, l'installation, tout, tout, tout m'a impressionné, franchement, ouais.

Ah, waaw yoon yaa ngi xaar lu nga dund li nga xamante lu dàq lu nga jotoon dund année passée xoolal chaque année de day gën a neex amu frontière <laughs> non non yuusu moom ala accu ndax yàlla naka soirée bi loo koy noo koy waajee soirée bi neex na trop neex na ba pare waaw sax nga neex na neex na trop parce que ambiance baa ci biir merci beaucoup ay seex ngeen wala ça va non non duñu ay seex. loolu loolu neex rek nar a neex macha allah. ça fait deux ans ñëw ma moo tax tey mooy il faut ma def tout ba ñëw. lii nit ma ko jooj waaw dégg si tam aussi c'est le grand moom mooy le roi bu baax sax ah yow it Dakar rek Dakar rek waaye waaye bu xëy nag mais ndar bi moo dàq quand même ah. dix moo ko waral moom Youssou Ndour bee waral li. ko may. nii laa koy mayee waaw. sedd na te affaire yi commencé gul. kontaan nañ trop moom vraiment kontaan nañ. lii yëpp Youssou moo ko waral. lan bi nga ñëw ak léegi diggante bi ngay dugg balaa ngay entré balaa ngay dugg si biir si biir salle bi. waaw mooy kontaan nañ parce que nit yi bari nañ instant heure bi demagul fenn mais xat na. bi moo ñaatoon nga ñëw. ñaatoon nga fi ñëw. ah sama quatrième année. quatrième année mais yëngatu tuuti mel ni ku sawaru quoi. du loolu de ay sawar naa kay kontaan bu ëpp rek moo ko waral. ci biir nga ko nar a wone. ah ci biir nga koy wone quoi. ci biir laa wone bàyyi bañ dugg ci biir waaw.